ak lu làmb mi ngi jooyati ci jamono ji ci doxalin goo xamante ni kenn xamul lu mu doon ndax est-ce que li ñuy wax naan lii di ministère de des sports bàyyeekoo ci nguur moom mooy fal kiy jiite président bu CNG gannaaw Alioune Sarr bi mu fi defee ñaar fukki at ak benn. làmb ji di yuuxu di sàkku wallu ngir ñu daal di soppi bile équipe waaye équipe boobu bañ ko soppee ñu indi fi keneen keneen kooku de nee na ñu jege na woon lool kii di Alioune Sarr ak équipe am rawatina tamit ci biir équipe bi am na tuuti coppite bi ci am nañu jàpp ne ñu ci bëri ne euh, équipe boobu ba tey moo fi des ndaxte Alioune Sarr. rek jëmmam mi ngi ci biir équipe bii di CNG waaye làmb ji nga xamante ni dañ ko annulé dans tout ça lan moo ci wàllub CNG dëgg la sax naam jàngoro bii di coronavirus mi ngi law ci biir réew mi di def ay loraange yoon la ñu daal di aj bépp manifestation waaye tamit am na doxalin boo xamante ni doon nañ ko doon séentu ndax à quatre heures bu combat bi nga xam ne waroon na am ci dimanche bi ñu dem ñu ne. amul service d'ordre amul ay takk der CNG loolu la ñuy wax ci ay information waaye tamit est-ce que CNG warul woon bind bataaxal promoteur bi tëgg envoyé lettre ñii di euh, manager mbër yi waroon bëre envoyé tamit leetre ñii di promoteur yu waroon tëgg seen i làmb muy Gaston mbeng beneen bi Pape Abdou Fall beneen bi Pape Thialis fay muy Boy Niang ak ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine rawatina ak yeneen di promoteur yoo xam ne war nañu tëgg waaye tamit loolu yëpp ñu daal di gis est-ce que ju ñàkk worma ñàkk considération ci làmb ji bàyyeekoo ci nguur rawatina tamit ci CNG waaye tamit g bi nga xam ne dañ ko tabb ñu bëri ñu ngi naan ku la abal bët moo lay wan fooy xool ndegam tamit. jii di Keba amul dëgg ci seen kaw ndaxte bi ñuy laaj kan moo war a nekk président moom dafa sampoon ndëm-ndëm ne dafay nekk euh, candidat pour jiite euh, CNG waaye lu ni mel ñu gis ne moom rek moo ci nekkoon candidat te it ci ay discours am yu mu doon def ay déclaration ñu ngi ko doon laaj ne ko ba xam gisee naag ministère de sport loolu yëpp rek ngir ministère bi daal di koy jàppale pour mu samp mu ne moom wutul kenn ku ko jàppale te bu demee ba am ku ko jàppale moo koy wax lu muy def te moom lu ni mel du ko nangu mukk est-ce que dëgg gi tey gisuñu ko ci kàddu Keba Kanté yooyu waaye daal lu ñu gën a yéem mooy CNG bii daal dafa mel ni ki dañ leen fa teg di leen conditionné di leen wax lu ñuy def te ak lu làmb làmb ji nga xamante ni euh, facteur de développement ay ndaw yu bëri ñu ngi ciy daan seen doole rawatina ay promoteur ak ñeneen ñeneen ñu ci walyaan mais daal considération bi matul considération bi doy na kéemtaan ndaxte lii di promoteur yi ak mbër yi laata rek ñuy wax lu ni mel waroon nañ leen bind ay bataaxal ndaxte lépp dafa war a nekk loo xam ni wàllu administration te CNG dañu war a dox ci lu ni mel wala sax ñu yégle benn bataaxal boo xam benn communiqué nga xam ne ñoom ñëpp nekk si axlu làmb dañ koy yëgandoo waaye di dem di négocier ak gouverneur donte sax gouverneur bu waxee dafay wax ci kàddu état ndaxte moo koy conditionné moom it muy def lu ni mel nangu nañ ko aj bi wala bokk annulation yenn combat yi nangu nañ ko ndax jàngoro bi waaye tamit lii di CNG dafa waroon yëgal ñi nga xam ñoo war a tëgg ak mbër yu war a sëgg bëre envoyé ay lettres seeni manager kon doxalin gii nga xamante ni doxalin bu jaarul yoon la wala bu sellul te Keba doon ko wax ndegam tey dëgg gi feeñul kon considération dafa war a am ci làmb ji mbër yi promoteurs yi amateurs yi ak képp koo xam ne dafa bokk ci euh, làmb kon boog lii jar na saytu jar na xoolaat ndaxte mbër yaa ngay yuuxu wallu ak promoteur yi